jërëjëf jaajëf Mamadou Lamine jaajëf Yacine Pouy jërë ngeen jëf internet yi ak auditeurs yi yéen a ngi seen journal des faits divers euh, xalaas ci biir RFM 94.0 and 0 ànd ceeg euh, Mamadou Mohamed ndiay sama waa ji Ndiaye maa ngi lay siyaar. <laughs> jërëjëf Awa Bakar njëkkantu maa ngi lay delloo siar gi maa ngi lay ñaanal jàmm di ko ñaanal euh, waa Sénégal di nuyu également passe partout. passe. asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam. maa ngi lay ziar bu baax Ababacar di la nuyu di nuyu lam fort borom dëkk bi borom réew mi. du nuyu auditeurs yi ak yëpp di ziar ñëpp réew mi Sénégal réew mi kay fi mu toll moom baax na. te ni mu mel nii moom yàlla bu ci dara changé ah waaw ni mu mel nii moom yàlla bu ci dara changé. ni ni mu calmé nii. Mm-hmm. coow amul ki gagné na gagné. ñu avancé ki nga xam ni lañ a gagné après yeneen yi di ñëw euh, mu xool nu def euh, ba distribution parfum de chambre bu baax neex accessible bu ngeen ko da Dolka parfum de chambre la boo bari variété am na Dolka vanille Dolka rose Dolka fresca citron. Super Fresca wala Dolka Colonia Touba daru Salam distribution ñoo ñu ko andil ñi ngi HLM Soudida c'est numéro téléphone di 77 417 54 64 wala ngeen dem marché central rue de la gare di marché bu mag ci Thiès numéros numéro téléphone 77 549 03 20 77 549 03 20 muy état euh, Touba d'Aru Salam distribution yi indi parfum de chambre bonheur neex bi nga xamante ne dit moo Dolka ñeneen ñu indi lu neex te am njariñ ci Sénégal maudit établissement wa kër Serigne Touba Fall et frère ñoom ñi ci gaamu vite fait bi yor original bi bu de bi di ko ci anam yu yomb ngir bëgg Sénégalais yi fu ñu mën di nekk

faatoo seen der muy nayeeka nes nes yi fu mu nekk mais également am na beneen saabu bu ñu naan savon king anti acné ngir ñi am picc kanam bobu lañ leen di conseiller établissement wa kër Serigne Touba Fall et frère c'est numéro téléphone 77 555 11 11 77 555 11 11 Optique Vision Plus Sénégal également lunettes partout et pour tous nek pour ci rewmi mi muy Dakar muy Touba muy Mbour muy euh, Louga muy Saint-Louis kër Mbay Fall gi sax ñongi fi lunettes yu bax yu que bu ngeen ko bëggee mo xam sur mesure la mën ngeen def seen commande ci diir bu gàtt ñu jox la ko day garantie te it dafa yomb. Lolé Moy Optique Vision Plus Sénégal c'est le euh, numéro de téléphone de 33 821 54 57 33 821 54 57 voilà 77 479 63 38 479 63 38 Optique Vision Plus Sénégal fatali len wala bok baaxee len ñi ngi lu euh, ci euh, au Kayar nga xamantene ji au au minéral naturel pur au Kayar di ndox mu eh, ndox mu neex mu digestion ndox moo xamante ji yeewuwaale ko rek dara mais également ak toute la journée dara ko ci doomu au Kayar di di di ndox moo je vous koy conseiller ñi nga information quantité bu ngeen ci bëgg ndox mu baax qualité 78 106 82 82 78 106 82 82 mooy au ma ak marque téléphone bi marque euh, tablette Miwan marque téléphone la bo xamantene ji gam la amna Android amna téléphone simple amna tablette marque Miwan yomb bo beug a dama len koy faral di wax bu ngeen déggé par exemple téléphone bu Android euh, di jar 38000 ci Miwan ngeen ko meuna a mais également téléphone bu baax. Euh, té muccu ayep ci njëggu yomb di jar 27000 ci miwan ngeen ko meuna a lu ci melni Q13 bi 28000 huit lay jar té lu nekk téléphone rek nek na ci mi wan teg ci di len garantil seen téléphone ak seen tablette pendant un an ak service après vente bu nek Grand Yoff ngir lu len jaxal ci téléphone bi rek mi wan da len koy lijjantil service après vente bi Grand Yoff la nekk jàkkaarloo ak euh, église Saint-Paul ababakar Ndiaye jaajëf contane euh, nañu ci partenaire yi euh, ci kóolute gi confiance gi nga xamni mom lañu am donc mu ngi noonu passe partout xalaas bi njëkk fan la lan la ñan la khalas bi dañuy dañuy Eh, indi benn xalaas bu fu jàlloon démb mooy faux policier bi doon agressé ci corniche bi. Hmm? waaw. am na yeneen i yu ma ci dégg. waaw man mi audio nañ ma SMS nañ ma def nañ ma yu bari. waaw di préciser ne nag du policier xam nañ ko démb. faux nga njëkk a wax de. faux policier la agresseur la en fait. Mhm. pour mu leer waa ji nag ndekete yàgg na fii de. mais jàppaguñ ko. mosul nañ ko jàpp mais instant yi nii libéré na. Hmm?

ma taxi baa ngi noonu di feexlu mooy masque de divinité bu wakam bi à gauche am na ay euh, baa nekk foofu ba jékki-jékki gis kenn kuy dox di ñëw mi ngi sol tenue tenue kak yi lay sol ak kagul lépp mais dafay lem quoi comme policier ni ñuy solee seen laafa yooyu ah ma ko xool ko xam ne ma kii homme de tenue la ma toog mu ñëw ba si man bi mu waxee man nag moo tax ma ne ko présente-toi avant ngay wax man an sa carte professionnelle parce que fa ñëw rek commencé yox lan fii heure bi ma ko avant génneel sa carte professionnelle bu ko waxee loolu mu ne ah, sama carte nga may laaj man ko génneel sa carte wax ak man si la na génneel benn paaka paaka bu rëy laaj ma sama saak so dafa am ku ma àndaloon

la plupart. waaye ba pare du ñëw loolu rek dina laaj noonu. police bu ñëwee dina la nuyu dina jàmmasanteeg yow laaj la loo fiy def wax nga wax ko mu expliquer la laaj la sa pièce nga wan ko ko mu wan la ginnaaw dem. mais police naan la ay jox ma sa saaga. du ñëpp de jox ma sa. walaay <laughs> eh, eh, xaw na la circuler. Hmm? Eh, am na ci ñu gàtti wax. am na ñoo xam ne moom. moom da ngay xam ne ñii moom defara leen taxu jóg. maintien de l'ordre. Hmm. daaray da mais am na ci ñoo xamante ne ji abaa niñ lay interpeller mo yëkëti sa xol. Hmm. ate ah, nit mom ni dong ni xam nga lan tax buñ ko télo ta japp dana dana dana dana def njombe yu bëri. moy hmm. ñun ragal borom tenu. Hmm. mën nga baña togn sax mais bo taxawé ak ñom da ngay du ragal de. du ragal de mais dañoo gaaw ci outrage à agent. mais euh, saa nga gis ñu man moo tax boo ma nit ci xam nga man nag man ñu ci bari euh, samay waay lañ. Hmm. da may jàpp ñu kaf reetaanee mais boo indiwul kaf man du ma indi kaf dama naan tekk nga laaj ma yëpp ma jox la nga wax ma na chef est-ce que doo ma bindal parce que bugguma ñu werante wala ñu waxtaan mën naa la tooñ nga mal interpréter ko. wala hmm. dara moo tax damay préférer. déet mais mooy ñi ci tali bi sax xëy na ñoo yow man ñiy def maintien de l'ordre laa lay wax. waaw xam nga ñi tali bi moom boo nekkee en règle. Hmm. coow du jub. moom li ñuy bañ bu ca nekk. bul wootee téléphone. ndax mën nañ la caa jàpp. takal sa ceinture. ndax mën nañ la caa jàpp. c'est-à-dire fexeel ba nekk en règle. en règle googu nag man mooy sama problème. mooy suñu. waaw <laughs> mooy suñu. dégg léegi nag. beneen bi topp mooy alkaat yi takk der c'est-à-dire nit boobu bu ñu nee kii ki maanaam yoon ko fi teg. jox ko respect. fexeel ba bu ngeen amee problème bu ñu demee du ñu nettali ne yaa tooñ. <laughs> yooyu moo la ci mën a génnee. <laughs> Hmm. ci jamonoy couvre feu bi am na benn oto wax ban koor la bu dugg suñu koñ. Mhm. dèjà benn lampe la. di ñëw dajeeg man dama koy code phare pour xam ndax scooter la wala lu doon. Mhm. ma code phare ko gis ne oto ci ci ñoom la. mu ñëw arrêté ma ma taxaw xam nga lu wax. Mhm. discipline de feu. ma ne ko yow benn bët nga. xam nañ mi ngi may discipline de feu ma ne ko yow sa oto benn la. mu ne ah seetlu wuñ ko <laughs> du ko cité cité cité mbàkk yu fay gii xam na li may wax. Odo boobu xam naa fu mu nekk. <laughs> Ndiaye Ndiaye di yow de yow da ngaa ci yoon man dey Ndiaye kayit manqué wul dara manqué wul couvre-feu may dawal ba an maris sama tournage mu ne ma foo jógee ma ne ko dama demoon tournage mu ne ma ndax da nga ba pare. Mhm. ma ne ko il me l'a bien demandé da nga ba pare. ma ne ko waaw mu ne man heure jot ma ne ko ay une heure yi de mu ne ma comme na nga nekk ci réew mi yaakaar ne yaa ko moom def lu la neex ba dakkaas baa nga ne demal toog attaaya bi wala léegi nag yeewu nañ ma bu yàgg mais ambiance ga fa nekk ak toog kaf gi reetaan gi ma fa bàyyi ba bi ma ne ko ci ci cadre waa mm-hmm. waa jii nii man je pense que aussi il faut que ñuy ñuy communiquer davantage surtout police ak gendarmerie parce que am secteur boobu noonu am na ci côté boo xam gendarmerie moo ko moo ko gérer mm-hmm. yenn saa yi par exemple victime yi bu ñu bu ñu waxul ci xalaas yi li yu demee noonu du siiw fekk na waa ji jàpp nañ ko jàppati ko jàppati ko police xam nañ adresse am fi mu dëkk. moom mi waaw. am na ci boo xam ne sax benn commissaire bu ma wax turam moo def leen sport dem ba jàppal ko boppam donc bi mu bi mu jógee prison yàggul mais secteur bii lay nekk diggante fii ba mosquée divinité ba fa lay nekk. dina ci am bés nag. moo ko yàgg yàgg xeex waaw waaw ah, nañ dem. beneen mu njaay xalaas express. Mhm. Euh, détenu yu nekk prison bu Mbour. Mhm. ñooy yëglu. Mhm. parce que ñoom nee dañuy dañuy bëgg def grève de la faim pour longue détention di ñaan daal pour fekkee mën nañ atte àtte ñu xam fu ñu féete surtout ñuy war a dem chambre criminelle. loolu loolu kay nag moom saway mooy feebaru détenu yëpp ah, mooy jàmbatu détenu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñu àtte leen kaso boo ci dem tey koo may nopp li mu lay mooy saway dimbali ñu ma wax ñu ñu àtte ñu Ah. am ñoo dossier dafa dem par contre nag hmm. euh, ki jiite administration pénitentiaire hmm. keroog bi ma koy dégg muy wax ci affaire évasion Pape Modou Fall. Hmm. Pape Seck. Pape Mamadou Seck. booy <laughs> mais da buy wax da ne nit a wax boo comprendre ñi mu ñi mu ñi mu ñi mu quoi xaw ko nag de mm-hmm. je pense mooy bokandé mm-hmm. xaw ko dé mais dama né la man bima ko déggee muy intervenir li nit ñi bëgg dégg ci dëgg mu wax len ko mm-hmm. wëlbati ko encore di ci teg ay conseils di xamal yenn yi nga xamante ne cest dire di dalal xel yi bu dé li mu wane man dima sukkandiku moy nit nit a ngi gis nga liberté doomu adama dafa am doolé buñ la ko xagné ba noppi jël loola am ñu ko dénk ne ko dee ko surveiller. Hmm. dafa war am nu mel war a mel ak nit ñi. ci lu leer. ci lu leer. nañ ci 44 euh, ci 42 xar yi. dañ na kilifa gu ma envoyé SMS. nee na hmm. ma le wax ci homme de tenue c'est bien parce que leen di hommagel faaw ñuy wax ci seen hmm. def yëpp. jaajëf kilifa gi a baax. te ñooñu dañuy jàpp ci ci ci ci liggéey bi nii nag. dañ jaay. pare yenn saa yi nga soxla ay info yoo xam ni yow ñoom ñoo la koy jox. waaw waaw waaw yu ci bari ñun ni ñuy jàppee ci seen liggéey ñom ñun ñoom noonu lañu japp jàpp seen liggéey tamit ñun kay jàppuñu ci njaay ak ñoo ci japp nak lan njaay yeen say ñu orienter leen wax leen fi amna danger worul dara ñu dem fa njaay fi ma wax ak ah yow ni ha ah, bepp commissaire bu ne Sénégal commandant wala général sa mi ngi deglu xalaas dañu deglu xalaas lu leer la la wax dañuy déglu xalaas le commissaire des commissaires mi ngi deglu xalaas yow yaa ngi dem ci police dañu tan lolu motax barki ya dugg be genn bi melni mo yow njaay eh. mo wax be affaire hmm. suma ne commissaire drame message ñay le message la léegi léegi léegi commissaire Sow bi nekk police boobu soo ko nee ñu ngi lay sant di la gërëm kenn du yow wala commissaire Thiam bi nekk point E léegi ñu gis message ak ah, ah, commissaire Asilem mais Ndiaye yaa leen orienté yaa leen dimbali ci yu bari parce que fii am na danger fii wóorul mhm. dañu fay bàyyi xel wala ah, ñaari élément wala ñoom tout le temps dañuy ne na population bi di collaborer mhm. Mhm. collaboration mun ta weesu ñëw fii wax leen di xew ci telle localité waaw bu dee côté boobu moom d'accord naa kenn du ay waa ji dafa demoon immigré mu échec mu ñëw investir ci ay xar ñu fekk ko fa. question immigration mën na réussir. ah am na ñu ci réussir kay. ban question nga laaj ni am na ñu ci réussir bu baax. ne dafa dafa demoon immigré ji échec mu ñibbi si. waaw mooy laaj ndax immigration mën na. réussir mais Ndiaye am na ñu wuti. ñëw investir fi ci réew mi waaw. ha waaw loolu je pense. noonu lañ ko mën a wooyee. ça dépend moom lu mu tuddee. réussir moom ah waaw waaw waaw. mënut a nekk. mënul nekk. eh buñ tëjee micro yi naa la wax lu tax. immigration mënul. réussir ci immigration. Ndiaye tey ànduma ak yow waa ñu dem man mii doxee ànduma ak yow non Ndiaye benn jeune frère boo xam ne dañ ko def lu méttee métti nag. lu méttee métti lañ ko def ndax dafa am ay nit ñoo xamante ne ñun xamuñu leen xamuñu ñan la euh, waaye nag ay bandi lañ ñoom ñoo dem ci suñu gëtt xar ñu daal di fa sàcc lu toll ci ñeenti fukki xar maanaam quarante moutons yoo xam ne yooyu kese kese la amoon. am na ñuy wax ne sax ëpp na ko ndax am na ay xar yoo xam ne ñu ngi ànd ak seeni ay doom loolu nag mu ngi amee ci dimanche bi ay booru vingt deux heures ndaxte xam ngeen bu nawet jotee dañuy jël sunu nag yeeg xar yeeg yóbbu leen ci àll bi ci non dañuy yàq tool yi moo tax ñu def ko moom nag foofu la doon fanaan gars yi nag euh, bon dañoo néew fekk ko foofu noonu ñu nekk bu mu wax yore seeni ay ngànnaay jël xar yi yeewi leen dagg buum yi dakk ko yóbbu moom balaa muy jóge foofu daw ñëw ci dëkk bi ba wax ko nit ñi waa dëkk bi jóg dugg ci àll bi ci vingt deux heures ba six heures du matin ba tey lënd gi toute la journée ñu ngi daw ci biir àll bi di xool waaye mënuñu fexe ba ñu xam gaa yi fan lañuy jaar fan lañuy yóbbu xar yi loolu nag lu metti la parce que booy xool moom sama frère bi migrant de retour la dafa tukki woon malheureusement nag mujjuta egg fele ci Europe mu dellu si nag fas yéene investir ci élevage lu mu am di ko ay xar di yar malheureusement nag ñu def ko lii te borom njaboot la donc mu nekk loo xam ne wax dëgg fa yàlla métti nañu torop saa ñun waa famille bi bi loolu amee nag jot nañu saisir la gendarmerie nga xamante ne vraiment ñu ngi rafetlu seen liggéey jot nañu aussi lancer voilà message bi partout pour que vraiment ñu jàppale ñu ñu delloo ñu sunu li nga xamante ne moom lañu moom. seen courant bi fan xaw ma lan la. Hmm. dégg nga ko mi ngi noonu. Hmm. d' accord ngeen wala d' accord lañ ci mën a wax. Ah <laughs> man man de ba tey d' accord bu dee li nga wax. Ah. <laughs> bu dee li nga ma wax. Ah. day nit nit moom nit kese nga bu dee li nga wax moom ànd naa ci ak yow mais bu <laughs> kon baax na te ñii ci kaw buñ ko déggee dañu ànd ak yow. kon baax na nit nit kese nga. d'accord ngeen comme ànd nga ak man rek baax na <laughs> fu ñu jëm feneen gaaw balaa heure bee jot. dégg nga ko njaay Ndiaye. Mhm. Ndiaye. 42 xar lañ lañ ñu yóbbul. waaw ëpp na ko sax ndax am na yoo xam ne dañoo ëmb yóbbaale. xar yi maanaam dañoo dafa am yoo xam ne dañu leen ñu yóbbaale ah waaye yow tamit doo ne xar <laughs> leen ëmbal. Ah. ay dañoo yóbbu ëmb di. <laughs> léegi nag lan mooy problème bi léegi. nag la ñuy kii di def pour dimbali ko. loolu mooy coow la nag. Hmm. non en fait. maanaam ku xàmmee xar yi ku xàmmee xam naa ne moom du léppay fay. am na parce que nee naa leen or ak ndawala yam buy génn di sey. am na suñ benn sa sa benn waay boo xam te ne eh, ma ngi RTS mais léegi ma ngi RTS bële. Euh, bi nekk Tamba. Mhm. moom it noonu lañ ko def yóbbu nañu quatre xaram dama fàtte tur bi xam naa ne après naa ko naa xool ma wax la ko. sama waay la man. waaw. Hmm. yoo xam nga ancien RTS yëpp say xarit lañ leen jaay <laughs> RTS gu bees gi ñoo xamul waaye RTS gu temps eh, booy ngay wax nii de. temps booy lii daal la nga ni. Ndiaye <laughs> waaw. waa ji de Aba jarbaatam jigéen la mais moom lu mu romb da koo jël. lu moom. lu moomul. Hmm, ay yëfi jàmbur. waaw boo yónnee nit téléphone nii sa bu génnee leen mu nangu ko ci boobu. nangu waaw ku jigéen ki. ku jigéen ki. yam yamu ca nag de. Hmm. day dem rek bu tey mi ngi Thiès ginnaaw suba mi ngi Louga ginnaaw suba mi ngi Mbour. ñi ne dañ koo naawtal ñi dañ koo yàq. ñi dafa am rab. ñu déglu ni jaaj déglu. bu doon xaalis rek moo koy faj kon réglé nañ problème bi. benn xale bu jigéen la. sama doomu rakk ma bokkal ndey ak baay génn àdduna à l'âge de trente trois ans am daal loo xam ni jaaxal nañ ci moom torop torop torop torop torop xale bi bay jël day dem kenn mënu ko téye kenn comprendre ko daal ci ay defenam fu nekk nag yóbbu nañ ko fa fu nekk rek foo xalaat rek lu nekk investir nañ ko ci xale bi mais ba léegi ne affaire yi day mel ni day yokk tey jii boo yónni woon sa benn doom bu génn dajeeg moom mu yor téléphone wala mu yor xaalis daf koy jël daf koy jël dem wala mu dugg ci kër gis ñu teg fa téléphone wala xaalis daf koy jël dem affaire bi nag jaaxal nañu lool ñii naan dañ ko naawtal ñii naan dafa dafa am ay rab euh, lu nekk daal nit ñi di ko xam nga Sénégal rek moom kenn ku ci nekk bu dara amee kenn ku ci nekk ak sa version te sooy wax moom euh, du la tontu daf lay xool rek boo ko gisee da nga naan kii buñ la nee li muy def sax da nga naan non kii du def dara def loolu te mën naa tasub dëkk loolu nag euh, jaaxal na ñun famille bi yëpp ku ci mën a jàppale daal xale bu jigéen boobu mën a retrouver waat ci société bi normalement c'est que li ma ci gën a métti mooy xale bu jigéen la am na ay jamono dama nangul woon téléphone bi mais bu ñu jëlee téléphone bi dañuy gis ni ay góor yu bëri ñoo ko ci woo ay góor yu bëree bëri ñoo ko ci woo ay mbuur ak Cees jamono jii ma wax ak yow mi ngi ci mi ngi Cees woowee sama rakk bu jigéen bi ni ko ana mu ne ma dafa dem cees lu mu wuti Thiès mu ne dafa liggéey ma ne ko liggéey kan la fa demal mu ni nee na dafa liggéey man ne ko nee na dafa liggéey rek ngeen bàyyi ko comme ça mu dem Thiès xanaa nit boo ko boo ko yoree maanaam buy dem war nga xam ban kër la dem war nga xam fan la dem wala nga ne ko demal béréb sàngam xale bu jigéen boo xam ni boo amagul vingt ans wala ca lay yem ah man ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay fay nañ lu mu jël ba taay loo xam ne ay nit ñoo ñëw nit nit des ñoo ñu remboursé ko fay leen kon loolu mën nañ ko tuddee sàcc mën nañ daal day sàcc day jël day fréquenté aussi je pense que ay góor parce que téléphone am ay góor ñoo ko ci woo mais man je sais que ni ay dina day fréquenté ay góor parce que day yor xaalis téléphone du ko manqué bu ko manqué da koy sàcc xaalis lu mu gis da ko jël Louga sax dafay dem natt jàmbur sax jël na ko lu ne fay nañ ko ci ci moom ay bor kayaar euh, gi mu mujjee nekk nii rek Euh, day dugg ci ay kër di jar jàpp nañ ko ci mais kenn du ko dóor dañ koy ñu koy indil jël na suñu nangam sangam te xaalis bi après doo ko gis wala da maanaam daf koy denc boo waxee wax wax du la wax sax du la tut maanaam du du wax daal après ñu dañuy fay loolu après bu toogee quelque temps nga jekk ci caabi mu ni mes dem bu soxlaa day jël xaalis ci mbedd mi wala ci kër jàmbur après ci lay paas dem di war ay téléphones yoo xamante ni nii wóor na ma ni daf koy sàcc mais affaire yi bi mu ko commencé boobu amul 15 ans amul 15 ans bi mu nekk xale bu ndaw ci la ko commencé woon di ko def boobu amul 15 ans danaan jékki-jékki sax fàq dem kenn du xam fan la dem ni jékki-jékki rek ñu ni ma nga mbuur maanaam lu lu yéeme la daal xale la daal xale la boo ko gisee judduwul bu la nee kii day def lii doo ko su ma doon moom nag damay wëlbatiku ci pajum wolof yi ci ñaan yeeg yooyu. Hmm. waaw loolu moo tax mu ñëw fi sax nag. voilà voilà loolu moom su doon may moom parce que am na yoo xamante ne ji. Hmm. que sama xam-xam bëriwul ci loolu waaye du ci bëri de xam naa ne. Hmm. mbiri mbiri mbiri wolof rax na ci. rax na ci moom xam nga di def loo gis jël ko. loolu rek problème la. waaw beneen bi topp mooy doo toog. boo ko jekkoo bu subaa yaa ngi fii ginnaaw suba yaa ngi fële ci xale bu jigéen en plus. ah war nañ nañ ci teel jóg de. ku ci mën dara daal mën nga ñu contacter ci 77 150 17 17 dinaa la fa xalaas utaale ci solution. Ndiaye bu ma la nee autorité yi dañ ñu ngi ñuy bàyyi xel. wala au gradé yi ñu ñuy bàyyi xel. Mhm. wala kilifa yi nga xam ñoo ne ci armée bi ren ma weddi de gars yi dañ ñuy gars yi dañ ñuy bàyyi xel de Ndiaye. Ah. waaw parce que. Euh, fait divers la ñuy waxtaanee. Mhm. li metti yeeg fi amul sécurité yeeg fi danger yi nek ak yooyu. kuñu nax ak wa kuñu nax ak kuñu li dañ lay dañ lay baye xel par force tay waxna ni ki ñaari kilifa ñu ngi lay envoyer message ñu ñun tam ñu ngi leen baye xel parce que seen émission la quand même. Mhm. est-ce que ba xam nga lu waral lolu aussi. Mhm. xam nga gis nga tay Ndiaye amna ci amna ci yo xam ne bu ñëwé fi tu es obligé nga dem soit vers la police wala vers la gendarmerie pour mën a creuser yenn information yi. motax tay lolu tam ñom dañ leen di remercier ci facilité bi ñu facilité lolu muy police muy gendarmerie mun ñoo leen kenn. <laughs> ba pare paas dafa am lu xew ci ay police ak ay gendarme ci armée bi. <laughs> waaw mooy ñi gën a garaade fi ñu toll nii may waxee yow ci armée bi Ndiaye ay booy lañ booy. <laughs> yu ndaw Ndiaye booy ay jiin la ñuy sol kiyoon man dama ci def erreur boo xam ne damay bañ ngeen def ko. Hmm. ay jiiñ ay gi ay jiin dama def police point e ñu ne ma euh, ma ni commissaire bi laay seet ñu ne ma demal toog ne xaar ko mu ñëw. commissaire bi romb na ma cinq fois mais ni ma romb eh Aba eh yaa ngi toog daal may jox loxo bi nii ma ne waaw maa ngi xaar commissaire bi commissaire bi dugg génn naan Aba yaa ngi ma ne waaw maa ngi xaar commissaire bi ma nee kii commissaire bi eh <laughs> kaasu ataaya la yor kaasu ataaya ma ne ko eh booy kan may ataaya bi commissaire la def leen très attention ay <laughs>